alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakaatu asalaamaaleykum taala wa barakaatu ngi nuyu ñep ku ci nek sa tur ak sa sante di len ziar di len magal di len ndamoo di len titero di len bëgg bu wer ñewat nañ ci opération reub dem star saturday night teel saturday saturday night saturday night saturday night teel saturday saturday night saturday night saturday night Dallas Saturday night, Saturday night, Saturday night, Saturday night. Yeah. ñëwaat na votre aimable et détestable serviteur Mollah Morgun di ko nokkos di rokkos di suqi di muqi am fit for life wax dëgg forever and we don't give a foof foof foof foof saral never du daw du daay du reculer am fit for life wax dëgg forever Yeah, what up? Let's go guys. non son bi dañ ko dugal boobu ba léegi gars yi ñu koy laaj nag ñun xam nga rek <laughs> dañ bëri ci lu ñu nekk ba des fois dañuy dañuy dañuy fàtte yenn affaire mais ñu ngi jégalu son bi dinañ ko dugal am na tamit euh, pétrole gaz pétrole gaz non dinañ ko dugal koo pour l'instant nañ ñëw Bassirou Gueye xam ngeen ko Serigne Bassirou Gueye doomu xaraam bi loolu nag du lu ñuy wax lu tax boo doomu xaraam wax nañ leen ko sëñ Basirou Gueye ca yaay ja ndey ja doom ja ku ko bañ sa yaaya baaxul donc sëriñ Basirou Gueye buggul dégg yaay ji dam Gueye dam Gueye nag mooy mandikat ba jur sëriñ Basirou Gueye ci fële ca cilil ma xamba kool ah yaay ja nag doon fréquenté baar wa ñuy woowee xurwa xurwa <laughs> donc sëñ Basirou Gueye bi xaram la doomu xaram la de de naissance de naissance yaayam naankotu sangara la woon toxkat la won nekkun xurwa di jay bopam donc seigne Bassirou gay doomu tiagala kokku moom ken munu ko ko dindi barba ba xurwa boo demee cilmaxa mbakol mom seigne Bassirou gay moko tejj mo fa indi gendarmerie mo tejj baar ba donc saa xolé xoolee ba rek xelam dina dem ci yaay ja ci ci flak yum don doon ci euh, et cetera et cetera ak la gazelle ya yaay ja yag yàgg nan naan la gazelle ak flak waaw kookoo jur nag ki nga xam ne mooy Dame Gueye mooy ndeyu Serigne Bassirou Gueye indil ñu doomi xaram bii di Serigne Bassirou Gueye nee na yow moo nekk procureur tey nag Macky Sall jël ko yóbbu ko nag <laughs> waaw donc Serigne Bassirou Gueye ku yàgg def sal bulo la nit bu salte la juddoo fu salte ba nga xam ni sëñ Bassirou Gueye ku yàgg def lu sal la sëñ Bassirou Gueye ci sal la bàyyee ko donc nit maanaam euh, ay puub moom sax rek a fa mun a màgg ay puub leneen mënu fa màgg ay puub bu yàggee ay saxafay màgg donc sëñ Bassirou Gueye ci puub la juddoo donc moo tax bu doonee sax warul bett kenn ndax puub moom sax la mun a jur <laughs> nañ waxante dëgg na puub munul jur fleur munul jur ay banaana munul jur ay pomme puub moom sax rek la mun a génne kon sëriñ Bassirou Gueye ak béy sëriñ Bassirou Gueye ab sax la ab sax bu bàyyee ko ci puub puub ñi nag moom mooy ndayam di daam Gueye waaw euh, baayam di jéer a Gueye baar xurwa donc kooku noonu ab imbécile la di ko waxal tamit ne ko Serigne Bassirou Gueye comme nu ma la yàgg a waxee rek nee naa la euh, ku la ëpp baatin moom munoo koo fexeel Serigne bassiru Gueye tey la def une semaine dem na fële ca Mbuur joxe na fa sama tur ci benn sëriñ continué na dem na ba Sinja wat na fa sama tour ci ben serigne di xamal ni serigne basirou gay yow sa bop dem nga mbour ci ben serigne joxe fa sama tour jël la fa na budul sosé jox nga fa sama tour pour mu noppiloo ma fexeel ma waa ji na la ay fenn yu toy xep ne la mën na ma daane mën na ma teural mën na ma lo day katch nak fexeb ba samedi samedi samedi nga joge fa bu nga joge mbour fan nga dal Sinja Sinja tam joxe nga fa sama sëñ Basiru man ay jinne laa yor <laughs> xam nga lu lu kii di euh, euh, euh, ma cuucu fay bu mu defee loolu wax naa ko ci sëriñ yamu mu demoon sëriñ bi nekk village bu nekk Louga wax naa ko ko ak bu mu recevoir beneen sëriñ ci hôtel bi ñu naan la Saint-Légienne kon man dama leen topp xam ngeen samp yéen xamu leen luy samp de xamu leen luy samp yéen sëñ Basiru Gueye boo ba léegi yéen a may fexeel may gën a leer di gën a am xaalis di gën a solu di gën a fees di gën a lekk ba suur di gën a naan ba màndi xanaa xamul leen chaque jour ngeen may jéemal yàlla di ma gën a ubbil ay buntu dañ maa samp samay maam dañ ma samp xam ngeen samp samp dafa mel ni ñu jël benn caméra tegal la samp mooy caméra ñu tegal la caméra man dañ maa samp samay maam dañ ma bàyyi kuñ samp dañ maa samp maanaam waaw samay maam dañ ma samp maanaam caméra caméra boo ko tegee fenn ku jàll boo ñëwee xool di gis kii jàll na fi képp ku may jéemal loo def mun naa la ko wax wallahi al azim képp ku may jéemal loo def mun naa la ko wax ma ñàkk sama de te loo yàgg na ci man de am na ñu ma doon jéemal bu yàgg dañ doon ñëw ma leen di wax lépp lu ñu doon jéem ñi yàgg seetaan yàgg déglu laa Morgun depuis bu may wax ay waxu rab yooyu ñu ma doon jéemal pexe pexe bu ñu def mun naa leen pexe bii ngeen def dem ngeen ci dëkk jël ngeen fa ab gaal dugg ngeen ci jël ngeen benn animal animal bu ngeen dagg bopp bi dugal ci ay ay ay ay ay secret ay affaire pour maanaam noppiloo ma noppiloo ma ngeen ñaw gémmiñ gi takk ko benn brique dem ba digg géej jël gaal luwe gaal dem ba digg géej ngeen tëmbal ko fa pour ma noppi ma waxoon naa leen ko te gis nga tey laa gën a mun a wax <laughs> dañ maa samp man leen ñëwaat ngeen encore bu ngeen defee loolu ba pare jël ngeen benn tiis boo xam ne yéen a ko jëlee ci ab muuma muuma yëre muuma ngeen dagg xam nga Momadou wax buy wax kenn ko dégg ngeen jël ko tiisi boobu def ci ay pexe jox ko sëriñ bi mu def ci ay pexe ngeen tëmbal ko ci teen mooy maanaam bu ma waxee te kenn du ma dégg muuma dèjà bu waxee c'est difficile nga comprendre ko ba pare ngeen tëmbal ko ci teen pour bu ma kenn dégg tey laa gën a mun a wax tey laa gën a mun a te lépp nag ki ma koy jéemal saa yu ma amee possibilité dama koy yónnee ne ko def nga lii tey def nga lii démb def nga lii barki démb man samay maama ma samp nee naa leen samay juróom-ñaari maam ay sëriñ lañ juróom ñaari maam <laughs> ay sëriñ lañ mais ku xamul xamut sëriñ sëñ Basiru yàqu na yàqu na xoolil leneen ñaar ñooñu bu ñu la waxee ne mun nañ ma ko dañuy fen yàq naa ko bu yàgg yàgg yàgg <laughs> demal ayca ñu jàllaat ci leneen donc sëñ Basiru Gueye yow doomu xaram bi yow doomu daam Gueye caga bi dinañ la dinañ ñëw ci yow sa yëfu xaj yi ngay def ak yow sa yëfu imbécile yi ngay def mais ñu ngi ñëwaat léegi ci yow dinañ ñëw tamit ci Moussa Fall dinañ ñëw ci Moussa Fall ñëw ci waaw avant tout wax xalaat ma indil leen sax man sëriñ Bassirou Gueye dégg xool leen lii Serigne Bassirou Gueye bu yore OFNAC ah <laughs> Macky Sall nee na yee eh, Serigne la jox OFNAC d'accord acca ñu déglu lii en attendant concentrez-vous wa ma ngay ñëw ah non bii ay ca ay ca ay ca ñu dem seetaan leen suma gaañ yi xool leen lii la Basirou Gueye tabax fii si Almadi montagne ba la ngeen bi seen mooy Paar Dongoor maa ngi nii si sose bi bu waaye suñu alal ah, fii fii place yi ascenseur la ah ascenseur deux deux ascenseurs xam naa bi bii mooy yéeg waaw bii mooy wàcc waaw ascenseur yaa ngi noonu procureur de la république lii la tabax fii si almadi waaw gis ngeen sàcca gis nekk si réew mi gis nga faar de mame la ngi nere ngeen di gis waaye faar de mame la ngi nere waaw dara ma gaaw bu laa gardien yi ma gis maa fa yónni sama missionnaire yi kër sëñ Basirou Gueye bi yónni naa fa missionnaire yi déglu leen 11 étages la sëñ Bassirou Gueye di tabax premier étage baa ngi nii par baa ngi gis ngeen mi mamel bi nañ lii la fi Bassirou Gueye suñuy milliards mu ngi nii ñoom ñëpp ay sàcc lañ nag voilà fii tam gis ngeen place yi ascenseur yi fii mooy premier étage sànq maay woon ci rez-de-chaussée bi gis nga bàyyi ma taxaw fii parce que deuxième étage laay yéeg te mu ngi nii ñu ngi koy coffre pour ngeen gis voilà li mooy injustice bi daw si réew bi ay baadoola yoruñu woon démb dara tey ñëw nekk ay milliardaires voilà dañu alal réew ma ñëpp a ngi nii ñu la Basirou Gueye taxaw léegi beneen mi ngi nii sëñ Basirou Gueye sax daf ñëw Bassirou Gueye procureur de la République du Sénégal check this shit xam ngeen ne ñaati millions la lii mu ngi nii fii à Mamel ay milliards pardon je veux dire combien de milliards ça c'est Mamel gis ngeen lii yëpp moom la waaw ah, gis nga faar baa ngi nii gis ngeen ah faar bee ko tiim faar ah, bee ko tiim léegi mur bi ngeen a gis ni lii yëpp xool leen mur lébu yi la sàcc nañ lépp gis nga waaw chaque vendredi nag dina fi ñëw. xool leen miir bi nu mu day xool leen miir bi koñ ba koñ chaque vendredi sëñ Bassirou Gueye fa chaque vendredi boo fa demee fekk fa sëñ Bassirou Gueye mu ñëw di xool bi fu mu toll chaque vendredi boo fa demee fekk fa sëñ Bassirou Gueye weddi gis bokk ci xool leen kër gi bu baax saa yoo fa demee fekk fa Bassirou Gueye mu taxaw. basiru Gueye procureur de la république du Sénégal check this shit xam nga ne lii ñaati millions la lii mu ngi nii fii à Mamel ay milliards pardon je veux dire combien de milliards ça c'est à Mamel gis ngeen lii yëpp moom la. ay turki ñoo koy tabax xoolal kër gi fu mu tàmbalee xool leen fële. gis ngeen fu mu tàmbalee ci coin ba. Ah, ca coin ba la tàmbalee xool leen kër gi fu mu tàmbalee. allahu akbar. Serigne Bassirou Gueye waaw te fii yëpp alali le buy la sàcc nañ lepp gis nga waaw chaque vendredi nak dina fi ñew ci xasel wax suñu mbokk dula dula du look at this this fucking building belong to Bassirou Gueye procureur de la République du Sénégal check this shit xam nga ne li ñaati million la li mu ngi nii fii à Mamel ay milliards pardon je veux dire combien de milliards ça c'est à Mamel gis ngeen lii yëpp moom la waaw gis nga far baa ngi nii gis ngeen ah far bee ko tiim ah far bee ko tiim léegi miir bi ngeen a gis ni lii yëpp Basiru Gaye ko moom waaw te fii yëpp alali lébu yi la sàcc nañ lépp gis nga waaw chaque vendredi nag dina fi ñëw donc gis ngeen gis ngeen Basiru Gaye moom moom kër googu presque nu mu dee dee dee dina ci def benn 10 milliards mass un procureur américain sax 10 milliards un procureur français sax 10 milliards Bassirou Gueye a yor ay milliards la yor sac ci petit détournement ci malversation financière ci jaayum arnaque loolu la Bassirou Gueye di liggéey

de de dossier falsificateur de procès verbaux <laughs> Serigne Bassirou Gueye kat bu maga maga mag a mag mom moy yée moom mooy OFNAC léegi len danaa wax lan motax Macky Sall teg ko fa Macky Sall ben mission la ko jox pour mu raxas lepp luy dossier lepp luy dossier lepp lu newoon détournement de denier public Serigne Bassirou Gueye dina ko raxas ba mu set wecc wecc wecc wecc balaa gars yi di yexi 2024 loolu kese moy mission am amul benen mission sa sa mission c'est c'est pour euh, que les détourneurs de la République ne soient pas inquiétés. Les détourneurs de la République, ne ne soient pas inquiétés. Donc bu fa Bassirou il fu République bi euh, Bassirou poursuivre etc. donc madame 2024 pas de contrôle acca na gaay yi rawale luñ mëna rawale la Macky Sall rawale nu mëna mën a rawale moom ak mbokkam ak yi luñ door Sénégal yépp kep caisse yépp mu jeex vide ñu kajj caisse yi en attendant bu amé kuy ñëw du fi fekk dara dara dara donc Seigne Bassirou Gueye sa première mission c'est de protéger les détourneurs de la euh, de la République euh, pour qu'ils ne soient pas inquiets. donc loolu mom moy liggéeyam bi nga xamné mom mo ñëk raxas trace yëpp raxas euh, crime bek lépp te crime financier yeeg yëpp donc loolu rek moy liggéeyu seigne Bassirou gay te Macky Sall xamna lutax mu tek ko fo pour mu raxasal ko lep lep lep lep lu fi gars defone ñu raxas ko ba mu set wetch effacer lépp parce que suite <laughs> logique la enquête yi procès yooyu ñu defone ak euh, ofnak ak IG lepp lu mu yobbu won ci kan lay dal Serigne Bassirou gay donc dossier yeup ci loxo sëñ Bassirou gay legui suite logique la dossier yi nga doon yiñ doon dajale yépp plainte yi ak yépp ci Seigne Bassirou Gueye la doon ñëw of naag ak lépp bu jógoon ci Macky Sall ci Seigne Bassirou Gueye Seigne Bassirou Gueye yor ko Macky Sall jëlaat ko léegi yóbbu ko of naag maanaam dossier ya nga yaroon yiñ la joxoon tama teg ci sama kudd tama jox la léegi yow laa ko jox ba léegi Seigne Bassirou Gueye c'est un procureur c'est un procureur de dafa jóge ci procureur de la république ñëw ci procureur international du Sénégal maanaam léegi dossier yooyu noonu ñu ko joxoon lépp mi ngi mu yore moy dossier yu OFNAC yëpp yi ñu ko joxoon cour cour cour OFNAC bi euh, des enrichissement illicite ñëwaat na ci loxoom léegi yóbbuwaat moom lay yóbbuwaat ofnak tok nag léegi léegi lan la xam dossier yoy léegi pour raxas ko la raxasal ba mu set dindi trace yi crime de crime financier yi na set wetch na set wetch wetch parce que yëpp yu ñu ko joxone seigne Bassirou Gueye amul kum ci top donc dossier le la jëlaat rek soxlawul ñu koy joxaat dossier dossier la jëlaat rek après légui pour la mission mom moy nako raxas ba mu set wecc wecc weccaaral donc euh, lool la pour l'instant après nak pousser ay ñom Ousmane Sonko à déclarer leur patrimoine euh, et suivre leur bien waaw ñëw à part raxas c'est muy day poursuivre ñom Ousmane Sonko à déclarer leur patrimoine patrimoine déjà ils l'ont fait et suivre leur bien du top sen affaire yi euh, voilà lool rek mooy euh, moy liggéeyam donc té fassiyéné comme nous ko waxé Macky Sall fassiyéné nako def parce que OFNAC il suit le patrimoine et l'enrichissement illicite le patrimoine et l'enrichissement illicite donc rapport mi ngoon ci loxom rapport yi la jëlaat rek <laughs> indi OFNAC donc euh, pour trace pour setal trace yi setal crime yi loolu kese mooy liggéeyam té té waxnako Macky Sall quand même ne ko dina ko def ba mu set wecc avant même bu féké dañuy daanu sax wa Aliou Sall ak ay Mamour Diallo ay ñom Prodak ak yëpp tout raxas lépp lépp lépp lépp ba mu set avant nga xam ne bu yàlla dafa def ni dañuy daanu te dinañ daanu après nag ku ñëw day ñëw fekk ay dossiers yu vide yu vide dara new ca voilà falsificateur de de procès mon, de procès verbaux mon, boko joxé vraiment pour mu pour mu yoré ak gérer lolu dem suba suba mais comme Sénégal nek na lo xamni tamit euh le ridicule ne tue pas lo fa tek tam du tax gaay yi du tax gaay yi du tax gaay yi euh, lu wala ñaawlu wala dénoncer wala non ça passe ça passe comme euh, euh, comme du vaseline quoi